wax auzu billahi mina sheytaani rajim beneen yoon parce que saytaane moo dem ba moom nit ñi doomu aadama bu fekkee da ne jullit nga ak loo mën a doo wala murit nga loo mën a doo ci àdduna rek war nga jombale sa bopp ci yenn wax yi parce que boo demee ba ne nañ jël ay préservatif di ko dugal ci biir jumaa yi imaam yi di ko séddale parce que pour pourquoi xool bu yàqu mooy def loolu yan nu ci yàlla musal loolu duñ ci xóot li ñuy wax borom daan nañ ko ñaanal yàlla na imaam yi génn ñaanal ko yàlla mu soppee ci kaw amagoo kayit ngay liggéey amagoo yenn moyens yi nga yëkkati mën a jël somme bu toll noonu di ko jox jigéen ak oto pour mu war laa sëyal bu ko jaroon sax jar na ko mais nag yaakaar mooy li ma la wax sànq yaakaar moo foor yaakaarama tax lu gën ci moom rek mhm. ndaw si tamit mu bàyyi war xelam ci àdduna rek xam ne yii nii alal mbiru àdduna rek day jeex nañ bàyyi suñu xel bu baax a baax ne ñun dee mhm. waaw te dee moom képp ku ko sooraale ci sa bopp rek di nga war a mën a jombal sa bopp di def yenn yi yi ñu sibur ci people 221 ñu ngi leen di nuyu di ci ñëwaat ci sunu kër gi waaye di am mbégte di dalal euh, koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi mu di Cheikh Imam Assane Thiam euh, fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu xam-xam waaye fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu actualité euh, Cheikh bi dañ lay bàyyi nga nuyoog ñi lay suivre alhamdulillah aousubillah min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yaa himmata cheikhi uxdiri lana bi haada almahdari waltaat fihi bi nazaratin taati lana bi sawar rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli aleykum salaam wa rahmatullah mbokk People 221. Mhm. maa ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen tatagal suñu kër. jërëjëf fi may njëkkee ñu gis euh, barki démb am benn vidéo boo xamante ni mu ngi wër ci réew mi ki nga xamante ni mooy Ahmed Cissé yëkkati ko mu doon ay kàddu yoo xamante ni mu ngi développé di xamal que ni euh, lii di préservatif dañ ko war di distribuer ci jumaa yi yéen ñi nga xam ni yéen ay imam nekk ci dëkk bi ban jàngat nga am ci loolu. Euh, xam la kulli ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di ñuy nu di nuyu kilifa diine yi di nuyu xalifa général yu nekk Sénégal yëpp di nuyu mbokk taalibe yëpp kenn ku nekk ñu lay jox sa wàccuwaay ah yaakaar naa ñun ñëpp ñoo ko gisandoor mm-hmm. dañuy wax onze billahi mina sheytaani rajim beneen yoon parce que seytaane moo dem ba moom nit ñi parce que doomu aadama bu fekkee da ne jullit nga wala taalibe tiijaan nga ak loo mën a doo wala murit nga loo mën a doo ci àdduna rek war nga jombale sa bopp ci yenn wax yi mm-hmm. parce que boo demee ba ne nañ jël ay préservatif du ko dugal ci biir jumaa yi imaam yi di ko séddale parce que pour quoi xol bu yàqu mooy def loolu. Mhm. yal nañu ci yàlla musal. loolu duñ ci xóot li ñuy wax borom daan nañ ko ñaanal yàlla ne imaam yi génn ñaanal ko yàlla mu soppeeku. da jàpp dafa réer. waaw am na yoo xam ne tamit yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. mooy suñ njiit ñun ay jullit. Mhm. képp ku def lu safaanoog lu mu daan def bokkoo ci moo dàqoon a jàngale ñëpp. moo dàqoon a yare yëpp te mos ta wax wax ju ñàkk teggin mos ta yar nit kook ñàkk teggin kon boo demee ba koy tiitaroo yow war ngaa doon model te moom dañuy wax ci alquran ne wa anna haza siraati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subula nee na moom yoonam siraatul mustaqim la dafa leer kon képp kuy jëfee leneen lu dul loolu lu mu ci teg fa fattabiuhu yàlla wax ci alquran ne bu ngeen bëggee yàlla bëgg leen bëgg leen topp leen yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumullah mm-hmm. kon nag man li may wax ci loolu mooy mm-hmm. nañ ko ñaanal yàlla ñun ñëpp du question réer wala dara de waaye xol bu yàqu mën naa def lu ne nañ ko ñaanal yàlla rek parce que wax ji réy na mm-hmm. ci nopp neexul ci xalaat neexul ci déggin te naqadi ñu ñun ñëpp mais nag amuñ dara luñ man lu dul ñaan yàlla rek yàlla soppi xaale yi soppi melokaan yi ak jikko yi. Mhm. defaraat ñu defaraat jikko yi ndax xol yi yàqu na. ma ñëw ci li nga xamante ni mooy divorce bi nga xam ne am na fan yi mu indi problème bu rëy ki nga xamante ni mooy actrice bi di Daba. Mm. divorce am ak copain bi yaakaar naa yëg nga ko yaa ngi suivre actualité. waaw loolu noonu audio bi moo ñëw ba yegg ci man parce que ku jege waa ji di Ablaye. Mm-hmm. ñu ko jegee ci ñoom laa ko dégloo. Mm-hmm. muy mbir mu doy waar. Mm-hmm. parce que man jàngateewu ma ko li ma wax sànq rek. jikko yi ñoo yàqu. kenn jaratul jox confiance yenn confiance yi nga xamante ni mën nga jël sa alal di ko def ci koo xamante ni gisoo ko. même boo ko gisee sax am na noo war a mën a jëflante ak moom ba nga xamante ni ëllëg doo réccu dëgg na nag wa ku gëm yàlla la parce que waxam set na leer na macha allah mais jëf ji ko ndaw si jëf dafa ñaaw. amul kenn koo xamante ni yaa ngi koy déglu jamono ji te di ko rafetlu parce que nit ki bu yëkkatee alalam jox la. am ci yow confiance moo tax. Hmm. am ci yow yaakaar. Hmm. boo tasee yaakaaram rek àddunaam day yàqu. Hmm. di ci profité nag di wax Modou Modou yi ñu bàyyi seen xel ëllëg parce que lii jàngat la. exemple la ci ñoom ñoom ñëpp ñu jël seen matuwaay. parce que mënoo nekk ci kaw amagoo kayit ngay liggéey amagoo yenn moyens yi nga yëkkati mën a jël somme bu toll noonu di ko jox jigéen ak oto. pour mu war laa sëyal bu ko jaroon sax jar na ko mais nag yaakaar muy li ma la wax sànq yaakaar moo foor yaakaar ma tas yàlla yàlla may ko leneen lu gën ci moom rek. Mhm. ndaw si tamit mu bàyyi war xelam ci àdduna rek. xam mhm. ne yii nii alal mbiru àdduna rek day jeex nañ mhm. bàyyi suñu xel bu baax a baax ne ñun ñëppay de waa te dee moom képp ku ko sooraale ci sa bopp rek di nga war a mën a jombal sa bopp di def yenn yi. jërëjëf loolu mooy suñu proposition. jërëjëf waxtaan neex na ma ñëw ci wàllu xam-xam. fi ma njëkkee ak yow mooy wàllu seet. Euh, ci yan anam la ñuy seetee. waaw alhamdulilah sëñ bi anam yu ñuy seetee bëri na mais man dama tàmm ñaari anam muy listixaara ci laay gën di seete ak li nga xam ne ni mooy xam-xamu ramlu waaw kay waxuma nag ne xam-xam yëpp seet yëpp baax na bon na waxuma ndox baax na waxuma waxuma ndox bon na waxuma suuf bon na waxuma yeneen ak kurus bon na dee déedéet yëpp a baax waaye nag boo demee bay tànn man laa wax de li ma gis ak li ma xam su may jàng bu ma demee bay tànn damay tànn lu gën te xam naa ne ñaari seet yooyu dara gënu koo wér. Mm-hmm. te ramlu nag boo ci ñëwee dafa yaatu mm-hmm. sama émission passée. Mm-hmm. maa ciy wax bëri na ma oon di ma laaj. mais su ma sañoon bu ñu yoroon tableau fii léegi. mën nañaa tàmbali taxaw di jàngale lan mooy ilmu ramlu. parce que ramlu dafa am ay parties. dafa am ay xaaj. Mhm. boo ñëwee ci ilmu eh, raml da ngay ñëw ci buyutu raml bayti yi nga xamante ni fukk bayti la ak juróom benn mhm. boo ñëwee ci loolu dangay ñëw ci ashkaal yi mooy tomb yi boo ñëwee ci loolu dangay ngay pare ñëw ci ahkaam yi mhm. ci nga mën a jaaree pour xam ki nga xamante ni mooy doomu aadama bi loo ko war a mën a seetal boo ko gisee ni nga war a mën a jëflante ak moom parce que doomu aadama bu nekk am na biddiw biddiw bu mu méngoog doomu aadama bu nekk mu ngi mel tabi ay yaam am na lu méngoog li mel ni suuf wala ndox wala ngelaw wala safara te ñeent yooyu ñoo fi nekk ak kawaakib yi biddiw yi mhm. léegi nag boo jëflantee ak doomu aadama bi seetal ko mhm. seet gu wóor nag laa wax nga seetal ko mhm. di nga war a mën a xam biddiwam fan la méngoo ak mbiram parce que nit ku am bidéo rek am na sa mbir yi heure yu muy dox di dama ko ñëw mm. ci nga war a mën a jàpp rawxaanu doomu aadama bi mm. ba jëflante ak moom mm. dangay ngay gis ne ci ci biir biddiw yi ngay gis ne lu ci mel ne xamar day dóor 30 jours da ngay ñëw ci ñëw samsu da ngay ñëw ci ataarit da ngay ñëw ci zoxaal yooyu yëpp ay biddiw yoo loo xamante ni doomu aadama bu nekk mu ngi mén méngoo ak moom te loolu boo ko xoolut wala boo xamul amul xam-xamu dëgg doo mën a xam mbir yi pour nga mën a xool doomu aadama bi fan nga ko mën a jaar ba di ko ñaanal yàlla ñaan gi gaaw comme nu mu war a mën a doxee ba aajoom di mën a faju parce que rawxaan bi dafa am heure bu muy dox heure bu muy dox vite fait yow boo ko xamee pour nga jàpp nit ki ne ko taj ne ko nuuj tey jii yow boo doon liggéey nii ma xam heure booy wàcc ak heure booy xëy xam fi ngay jaar ak fooy gaare sa moto bi pour ma jàpp la du jafe loolu moo tax xam-xamu ram lu wóor. nekk seet bu gën a wóor ci seet te li may wax borom xam-xam yi xam nañ ci dara. te ram lu dañ koy jàng. nekkul loo xamante ni da ngay toog rek di ko di ko analyser nii di wax. dañ koy jàng maîtriser ko. xam ko xam bu yaatu la. bëgg naa ñu def ci ay yeneen émission yoo xamante ni. dañu ut table toog. di jàngale parti par partie ci ramlu. pour nit ñi nga xamante ni ñu ngi koy dégg te xamuñ ko. ñu mën cee bañ euh, ñu mën cee bàyyi xel bu baax a baax. pour ñu suñ ku ci bëgg jëflante ak ñun. ku bëgg xam-xam bi tamit. boo ñëwee fekk ñu am temps bi rek mën nañaa toog jàngal la ko pour ñu bëgg xam-xam xam-xam dañ koy jàng jërëjëf mhm. ma ñëw ci li nga xamante ni jamono ji mhm. yëngal na kër yu bari mu di néegu sëy impuissance sexuelle ma gis ci ñoo xamante ni tey yàlla sunu borom dimbali nañ la euh, dimbali nga leen ba tey ji ñu jël seeni doom dénk la ko ñuy tuddee la ay doom li nga ci am kenn xamul nu mu toll ci wàllu impuissance sexuelle néegu sëy waaw alhamdulilahi rabbil alamin euh, néegu sëy moom ci kattan sax laay wax parce que impuissance sexuelle. ak mhm. éjaculation précoce. Mhm. ak li nga xamante ni mooy masturbation ay feebar la du benn. Mhm. néew kattan mooy impuissance sexuelle. éjaculation précoce muy gaaw a daanu. n'est-ce pas. léegi nag yooyu noonu ay xam-xam la du benn xam-xam. ay xam-xam yoo xamante ni la da ngay jàng xam ko. te man damay wax ne nit ki. balaa nga jékkati sunguf wala reen. wala garab bu mënta doon di ko ko jox. war nga xam kii ban façon feebar la feebar. Mm. ak feebar bi lan moo ko waral. Mm-hmm. ak lan moo tax mu néew kàttan te demagul fenn parce que mm-hmm. ndaw yu bëri si ñun dañaa néew kàttan ay xale yu ndaw. Mm-hmm. te loolu noon ay feebar la feebari nag da am lu koy joxe. sabab bi ngay xam ba pare pour foo ko war a mën a faj nit ki. am na ci koo xamante ni balaa moo séq ak soxnaam day jug. mais bu xasee tiim soxna si rek dootul man dara. mën na bañ a doon ci sox am na ci yoo xam ne ay jëf lay doon jëfu doomu aadama mm-hmm. nit ki nga dem takki jabaru jàmbur jabaru jàmbur mooy nga ñëw fekk koo xamante ni mu ngi ci relation bu sëree ba dem ba am yaakaar nga ñëw jël ko mm-hmm. <laughs> waa ji mën na laa def loo xamante ni boo ko tiimee doo dem mm-hmm. yaa ngi dégg am na nag tamit mbir yoo xamante ni dafa yaatu te man li ma ciy gën a liggéey instant yi ma ngi ci am ay commande te bëggoon naa mu pare ngeen fekk ko fi li ma ciy gën a liggéey naar yi ñoo koy jëfandikoo ndax man sama mbir yu bari imaara lay gën a dem ci ka néew kattan ci ci wàllu kii parce que néew kattan bu ma yor man li ma ciy gën liggéey du question ko ay ndigg mënut dem wala da ngaa gaaw daan a nangam mais dëgër këcc laa wax. comme ça que boo koy jël te maa ngi ko defaree loo xamante ni lu naturel la. karité mhm. laa ko defaree karité bu gën ci karité yi karité bu baax. moom laa ko liggéeyee ak li nga xamante ni mooy concombre mhm. ak yenn ingrédients yi ak li nga xamante ni mooy biti koolaa mhm. day wow koŋ saddit bi day baax parce que awra day dellu. Mhm. bu ñëwee nag ci new kàttan ndigg lu mënul dem loolu tamit feebar la. Mhm. yaa ngi dégg nit ki mën naa am awra bu baax mais amut kàttan pour puus mu dem. Mhm. loolu feebar la. loolu dañ koy faj dañ koy traité ci ay plante lañ koy defaree yoo xamante ni ay plante la ay bant la yoo xamante ni ay sunguf la yoo xamante ni ay yeneen ingrédients yoo xamante ni lépp c'est naturel amul benn effet secondaire. lu tax ma ne la ci naar yi lay gën a dem naar yi ñëpp xam nañ ne dañaa am problème awra bu jug. Mm-hmm. bu dëgër dañ kaa am problème am. Mm-hmm. maa ngi ci am lu lu toll vingt commandes yoo xamante ni ñu ngi war a dem ba Dubaay. Mm-hmm. te man foofu laay gën a yóbbu sama mbir yi ci côté boobu noonu. parce que ñoom ñoo ma gën a xam. ci côté boobu noonu ci côté néew kàttan. en tout cas daal li ma man a wax mooy. képp koo xamante ni. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa yaa ngi yor li nga xamante ni mooy néew kàttan moo xam da ngaa yor ko. Mm-hmm. moo xam da ngaa jabet yor ko. Mm-hmm. moo xam ndoxu siti nga yor. Mm-hmm. yor ko. ba nga xamante ni mënoo sëy moo xam da nga doon masturbé wu ba mu doon feebar ci yow. mënoo sëy parce que am na ñoo xamante ni masturbation moo leen sonal ba nga xamante ni buñ tiimoon seen jëkkër li ma lay wax ni xam-xam la dama cee teg fu wóor ndax dañ may woo am na ñoo xamante ni sëy seen jëkkër masturbé wu seen bopp moo leen ko gënal parce que ci la ñuy gën a am plaisir ñoo xam ne sëq ak seen jabar dem masturbé moo leen ko gënal ndax ci la ñuy gën a am plaisir loolu feebar la yoo xamante ni dañ koy faj te luñ koy fajee xam-xam moo koy joxe man dama ne nit ki balaa ngaa yëkkati ay ngeer wala ay xob wala ay reen di ko ko jox lenn loo gis am na tolluwaay ñaata litre la war a def ñaata nangam la war mais da ngay jël rek garab jox ko nit muy dem mu koy jëlaatal yeneen gàngoro mhm. jàngoro mhm. te loolu yaan ci yàlla musal mhm. xam-xam dañ koy jàng li ma la waxaat beneen yoon mën naa fee toog di la limal lu ëpp trente et quelques plantes yoo xamante ni njëriñ la ñeel doomu aadama yi parce que yàlla wàccew dara ci hasard kon bu ñëwee ci côté boobu noonu alhamdulilah képp ku ñu woo moo xam lu la mënta dal bañ xool ko xam ne lii moo la tree néew kat lii moo tax amoo kattan ci saa ci kattanu yàlla loolu danañ ko saafara loo xamante ni amul benn effet secondaire waaw macha allah. Mhm, sëñ ma ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllu nopp jamono ji ñu bari koy woote ñu bari koy mbuboo te ma gis ci ñoo xamante ni tey secret bi yaa leen ko jox mu di wàllu nopp. waaw nopp moom. mooy boole ñaari nit. pour ñu ànd nekk benn. Mhm. jafewut. Mhm. waaye nag balaa ngaa nopp nit ki xamal ñaar ñi ngay nopp pour ñu ànd ndax seeni mbir dëppoo na am déet. ndax dina ko jëriñ. ndax sëy bi dina baax ndax dina barke. ndax njaboot ndax kër gi dina neex ndax waa ji dina yokkute ndax yow ku ndaw si di nga yokkute gis nga nu góor di demee di seet pour jabar. Mhm. noonu la jigéen war a seetee jëkkër. Mhm. te loolu yëpp lu ñuy tànn la parce que néeg bi ñaar a ko bokk. Mhm. kon ñaar ñu koy bokk ñoo war a man a tànnante man léegi nag li may wax ci côté boobu mooy que ne dama dama bëri ay cas yu may woo di ma wax seen problème mu borom kër parce que ji góor ñi wax naa ko sama vidéo passé nee naa góor gu ma ci moytuwul dinaa rëq sa ndigg te damay continuer di ko wax. ba nga demee ba nga xamante ni yow. Mhm. da nga dem takk xale bu ndaw benn yàqal nga ko jàngam wala yàqal nga ko liggéeyam. Mhm. jëlee ko kër ndeyam ak kër baayam andi ko sa kër. Mhm. boobu nga ko waroon a gën a mën a téye te fonk ko te xam ne kii. yaay ndeyam yaay baayam. mais wallahi la azim. tey rek moo ci mujj benn jigéen woo na ma ba ma kubbee sama téléphone jooy laa bëggoon a def ndax yërmande gi ma am ci moom. barki yónnentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wallahi la azim. dañ lay dañ lay maltraité ci biir kër yi di leen di leen bundu xatal di dem di mbaraan ba fa sa jabar dem nekk ci leneen. xoolal loolu sax day andi implication parce que njaalo baaxut. képp ku ci dëkk yàlla dina la won boppam. ba nga demee ba nga xam ne yow waroo mën ngaa takk jabar. nga war a mën a regle te sa bopp am nga droit am ñaar am nga droit am ñett am nga am ñeent. waaw boo dee jullit. mais nag boo demee ba am droit boobu. daf ko ci farata ak sunna. moo gën nga nekk di taxawaalu. man daal loolu laa gëm. képp ku fi nag sa jabar rëcc. ba dugg sama kër. wër na alquraani karim te li muy wax muy dëgg. dinaa la def loo xam ne yow ku góor ki dinga nga net di nga mel ni montre ci biir kër. Mhm. di nga toog sa biir kër toog sa jabar. Mhm. wa ilaa ma rëq sa ndigg. Mhm. jigéen tamit bu fi moytuwut am jëkkër ba pare di am far wala di taxawaalu ba sa jëkkër ñëw ba ci man ne ma. sama jabar nangam ak nangam. wala ñu nekk Europe di yónnee seen jabar àdduna ak li ci biiram ñu nekk biir Sénégal di taxawaalu dama cee am kaa yu dul jeex. képp ku ma ci xam sa tur wala sa jëkkër ñëw ci man wax ma ko. keroog ngay bàyyi taxawaalu ngay mel ni montre ci biir kër gi dootoo bouger centimètre te man maa la koy def <laughs> <laughs> Thiam waxtaan mhm. euh, xam ne dafa dem tukki am problème mu ñëw waaye ki nga xam ne dafa bëgg di déposer wala ki nga xamante ni dafa am ay jafe-jafe kër lépp luy papier dégg naa amoo ci morom. waaw papier alhamdulilah laa ci wax. Mhm. parce que gis nga nit ki. Mhm. bu la yàlla terelee rek. dangay ngay da ngay jël teraanga ji nga delloo ko borom bi. dégg nga bu baax. li ñuy yàlla ji terelee mooy lan. Mm-hmm. ñun so ñu ngi soog a génn presque bi mooy sama deuxième émission may wax may wax ci kii nii parce que boo gisee mu gaaw nii sax. Mm-hmm. nit ñi ñoo koy demande waat. Mm-hmm. parce que maa ngi woon di liggéey man Saalum laa ne. li ma gis nii dakaar liggéey moo ma fi andi. su ma mhm. liggéey pare damay delluwaat. nekkat ci yitte yi nekkat ci mhm. activité yi ndax foofu laay gën a mën a nekkee en l'aise. Mhm. te fa ma nit ñi di fekk. dama ñëw Dakar pour jël doomu aadama yi. yëkkati leen fii nde leen débbéj yóbbu leen ba Kaolack ba Saalum. faj seeni aajo cangal leen andiwaat leen te kenn du ci man dara. jëlee nit Europe mu ñëw Sénégal wàcc dakaar balaa moo yegg këram ne mes dugg sama kër ma faj aajo mu retourné dellu. mbiru kayit li ma ciy def ñëpp xam nañ mais yomb la mooy li ma la wax sànq rek dama lay seetal xool sa kayit gi lan moo ko teree dam mhm. nee naa la képp koo xamante ni yaa ngi ut kayit wala yaa ngi lijjanti dara papier ak boo mën a doon moo xam da ngay déposer ci ministère yi mm-hmm. wala directeur yi mm-hmm. wala nangam ak loo mën a doon moo xam da ngaa bëgg a tukki nga dem ci mm-hmm. ambassade yi te dama goo yóbboogoo kayit gi ngay déposer ko xasee la bu ba pare nag soog maa oo yooyu dañuy xool mbir yi lan moo ko gàllankoor ba ñëwut lan moo ko tere dem parce que lu junnee nit di wut la pour nga jot ci foo nga am ndimbal ndimbal loolu noonu nag yàlla koy joxe waa kay zalik fadlullahi yuti ngëneel la ngëneel yàllaa koy jox ku ko neex te ngëneel loolu ñun am na njortu ne mu ngi ci ñun parce que bañ ko dalee def ba léegi barke alquraan karim ñit ñi ñii ñu ngi Europe di am ay nationalité nationalité laa la wax européenne ñii ñu ngi Europe di am ay kayit ñii ñu ngi fu ne di ma woo di ma wax ay waxu kayit te yàlla ñu ciy dimbale ndax mosuñ cee jëflante ak nit bu fekkee am na rek maa ngi koy ñaan mu génn ne ma li nga ma waxoon amut mosuñ cee jëflante ak nit. Mhm. mu dem ñëw ne ma sëriñ bi non mhm. kayit gi amut sottiwut. Mhm. mosta am. te bu amee sax danañ ko xoolaat. parce que du neen. mel ni fi may xaw a jeexalee mu di wàllu kaaraange wàllu kaaraange bi ñu ko waxee wàllu wërsëg jamono ji ñu bari ñu ngi dem di mbëkki gaal yi loolu ñu ngi koy def dem ci naar bi grâce à am problème wërsëg te gis naa ñoo ci dimbali ba tey ñu samp ay entreprise ci réew mi. alhamdulilah mbiru wërsëg. man dama ne <laughs> yàlla mooy joxe xam-xam. mooy li ma la wax rek. mais na xam-xam dañ koy gëstu. man damay sant yàlla ndax xam nga la moo tax. man naa ne ba may wut. samay junne morom a ngi wut. te am na ñu yàlla xeeñ jox ma. kon loolu noonu teraanga la. te teraanga jooju duma ko fàtte. teraanga joo xamante nii la dama kaa yàlla daf ma kaa jox mais dama ko jël ëlbati ko jox ko doomu aadama yi. parce que ku bëgg a jox yàlla da ngay jox nit li ëpp li may jëflanteeg ñoom duñ ma jëriñ maa leen di jëriñ. nit day ñëw ba ci man. Mhm. ma jox ko lim soxla ba pare ci xam-xam. Mhm. pare yëkkati alal jox ko paas. Mhm. barke alquranil karim loolu xam la moo tax ma koy def. teraanga joo xam ne la yàlla moom ko ndax damay xelaat ne bari nañu ko doon ut amuñ ko. man ma dem gëstu ji ko yàlla jox ma ko. xam-xam la dañ kaa jàng. gis nga wàllu ubbeeku li nga fi gis ni yëpp ñun ñëw ko doon bind dañuy toog di bindal suñu bopp ci loxo. man du ma sëriñ buy nelaw. du ma sëriñ boo xamante ni da ngay nelaw wala nga toog TikTok di live 24 heures sur 24 wala nga live ba 6 heures du matin jot nga tëdd nelaw journée bi yëpp. wër na alxuraani karim man maay bind. Mhm. maay wuyu appel. Mhm. man maay toog di wirde di ñaan soxlaay jaamu yàlla yi. te amoo garde corps. garde corps fan laa koy lan laa koy doy. amu ci garde corps parce que soo xamee li nga yor doo doo soxla garde corps. ji nga wërsëg yàllaa ko yor. Mhm. mais doomu aadama yi ñoo koy tëj. nit ñi ñoo soxor. askan wi ñoo moo yàqu xol yi. Mhm. xol te xol bu demee ba yàqu lu ko neex lay def. Mhm. wallahi da ngay nekk ak nit di ko jëriñ lu ne mu lay xool bëtam bii. Mhm. te fekk yéenewu la dara lu baax. nit dina am wërsëg lool lool lool. mais nit ñi ñoo koy gàllankoor ba nga xamante ni wërsëgam di si jot. lii di nguur. xola Macky Sall ba muy fal euh, gouvernement bu beesam bi. Mm-hmm. billahi lazi laa ilaha illa hu li ci yàlla jaale la si sama loxo ci ay directeur ñu falu ci. Mm-hmm. kenn xamul nu mu toll te nguur yàlla koy joxe. Mm-hmm. yàlla mooy joxe nguur qul illahumma maalikul mulk tuutil mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa biyadika alxayr innaka alaa kulli shay'in qadiir tuuliju lleyla fi nnahaar wa tuuliju nnahaara fi lleyl wa tuxriju xayya mina almayt wa tuxriju mayta mina alxayy wa tarzuqu man tashaa bi xayri hisaab mais yooyu da ngay gis ne di nga qul illahumma góog maa ngi ciy def loo xamante ni ci wàllu nguur fa laay jaare yàlla faj sa aajo dóor directeur wala ministre député yi passé am naa fa assemblée ay député maire yi élection yi passé billahi lazi laa ilaha illa am naa ñaari maire ndakaaru te ci sama loxo la leen yàlla jaarale mhm. te mosuma ko wax du wax de mhm. mais jëf la jëf ji laa bëgg gi nit ñi di ko gis di ci teg bët mhm. ji nga wàllu musluwaay doomu aadama boo amee musluwaay bu bëri te amoo tawféex amoo fatu wala amoo ubbeeku dañ lay yàqal musluwaay bu bëri day tëj doomu aadama gis nga yow mi nga xamante ni da ngaa nekk ci bërëb di liggéey am dara di muslu wala nga nekk ci famille di ci xoslu yàlla suturaal la ci nga war a am wërsëg di ubbeeku di yaatu nit ñi di la xeex kaaraange gii man maa koy takkal sama bopp te man maa koy joxe mu ngi nii amut ay pettaaw amut béjjën amut dara alquran la ak yenn talzam yoo xamante ni ñu ngi ko jàmp ci biir man maa koy takk barki Seydina Muhammad ki ma ko jox. paa boo xamante ne am na 88 ans. te fi ma dajeek moom ba mu jox ma ko loolu yàlla rek moo ko xam yàlla rek moo ko mën a seede. Mhm. mooy que ne yar ak teggin moo tax ma jot ci lii. Mhm. te ba ma ci jotee ba léegi. Mhm. fu ma neex laay taxaw. mais du ma def lu bon. lu ma neex laay wax mais du ma wax njaaxum. 40 mille laa koy liggéeyee. te ndigal laa ci am. te ki ma ko jox nee na ma. takk ko dugg fu la neex. Mhm. réew tubaab. Mhm. Europe nangam takk te jox na ma ko ñett at. ma soog a dajee waat moom mu jox ma ndigal li. Mhm. ne ma dee ko joxe. barke alquranil karim. képp foo mën a toog ci àdduna. nit ñi bëgg laa yàq wala ñu lay woo ne la naan lay nangam wala nga toog sa yaram di diis. képp ku jug ci yow lii man maa koy joxe képp ku ko takk ku jug ci yow yàlla wan ko boppam. wan ko boppam mooy lépp lu mu la yéene woon dina këpp ci kawam. Mhm. waaw mhm. loolu man man maa la ko wax mhm. wàllu tawféex moom. tawféex rek. muy sunguf. muy alquran muy reen. ak lépp loo xamante ni doomu aadama mu ngi koy jëfandikoo. Uh-huh. ci wàllu xam-xam. ñu ngi ciy yëngu xam nañ xam-xam bu ñuul xam nañ nuuraaniyatu xam nañ zulumaaniyatu waaye zulumaaniyatu duñ ko jëfandikoo lu dut heure jotam jot. Mm-hmm. ñu jëfandikoo ko parce que am na ñoo xamante ni xamuñ daali dégguñ daali seen nopp yi moo tëx mm-hmm. da ngay xeex ak ñoom ci zahir duñ ko xam nga mm-hmm. ñëw ci baatin rek ñaf leen <laughs> waxtaan bi neex na trop euh, li ci nag bi xajul ci cin bi ñu amoon ko ak ki nga xamante ne mooy Cheikh euh, Imam Hassan Thiam euh, waxtaan bu neex nag li muy wax nag xam-xam dañ koy wax dañ ne utlub ilma bi chiin kon dañ koy jàng pare doo ko toog ci société bi ko wax sëñ bi tey waxtaan bi neex na lan ngay tàggatoo ak lan ngay ñaanal soppe yi waaw alhamdulilah li ñuy tàggatoo mooy maa ngi ñaaxaat sama mbokk sëriñ si ne leen ñu dimbale jaamu yàlla yi parce que sonn nañ. man du ma wax nit sëriñ day nax nit parce que loolu du duma ci dugg du debaa kenn ku nekk ak sa sa yéene ak sa bëgg-bëgg ak sa tolluwaay. mais bëgg naa ñuy am yitte dëgg dëgg dëgg ci soxla jaamu yàlla yi. parce que yitte boobu noonu yàlla dafay rus doomu aadama. te ci waa ci ragal yàlla ci lay yàlla di maye nit ki lu ne. nañ ragal yàlla ci lu ñuy def. nañ bàyyi alali jàmbur yi ñuy lekk di nelaw. di jël ay soo xooj ku ñëw nga dox ko bu mu dem toogal nga bind mbir yi mu leer xam-xam bi gëstu ko jàng ko nga man ko man loolu laa leen di conseiller man sama bopp laa ko njëkkee xam-xam bi nay dëggu te nit ki lépp lu muy wax wala mu koy def na fekk muy mu dëgg ci moom bu dëggoo rek di xam ne yàlla ndimbalam la yor te moo koy jox ku ko neex te saa yoo dëbb dëggoo pour am ndimbalal yàlla mhm. yàlla jox la ci ndimbalam li parce que doyewu ko dara magasin bi lu nubbu watu jeexu fa mhm. imam Hassan Cissé nee booy ñaan yàlla ñaanal yàlla ba xorom li si ngay xoral may sa sin si mhm. bul ko fàtte ñaanale ko yàlla parce que yàlla ci magasin bi doyewu ko dara ah, mu ngi noonu moom lañ amoon mu nekkoon suñu invité ah, di leen jox yeneen dig daje suñu yeneen émission